président ñi ànd ak moom ci boppam bu ñu toogee ak moom duñ ko wax dëgg. tey su ma toogoon ak Macky Sall xam nga lu ma koy wax. loo koy wax. dama ko naan président. waaw. suñ la gëm loo gëmloo yéene mën ngaa taxaw troisième mandat. Mm-hmm. jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci dëkk bi te dëkk bi du lakk. ngir xalifa yaa ngi fay fii la wàllu wi tëdd. mooy fen wi gën a rëy ci téeméeri at yi. googu dëgg gaxe dañ koy raay duñ ko ko wax. dama ko naan président. Mm-hmm. ñi sonn ci yow deug dëgg jëriñuwuñ ci yow mm-hmm. ñi jëriñu ci yow sonnuñ ci yow ak lan encore dama ko naan président personne biñ la na yaay la pili renseigné gëwuma ko pourquoi ndax ñu seuss yow ñu ngi génnee secret té liggéeyaluñ la du nopp koy cheikh ahmed dama ko naan président mm-hmm. yaa gën faral ci réew mi nga jiit loolu moom dafa leer nañ moom ku faral Macky Sall ngay am koy cheikh ahmed dama ko naan président waaw buntu booy génne ndax da ngaa tëj sa neex dañ lay lay la mu génne boppam ci lu rafet de def naa ne moom moo gën. dama ko daan président da nga mel ni ku iñaanee sa ndono sama ragal sa déy ñaaw mhm. dama ko daan président boo teewee yomal xeem xaw ma lu lay tardeel waaye ñàkk justice ci réew mi bu équilibre mën na laa tardeel surtout loolu dinaa ko ne président waaw doon yokkute nga digoon nit ñi mhm. mais milliards yi nga wax ne dugal nga ko ci réew mi yëpp tey la nit ñi gën a xiif billahi tax lépp yokk dund gi seer yooni club bi accident bi métti na ma métti na la hmm. ma toog rek gis nguur gi dajaloo interministère génnee 23 points ma ne leen da ngeen bàyyi benn point bu am importance mooy yaatal tali bi taal lamp yi téye baar yi ba rab yi duñ ñëw bu ngeen ko defee ngeen xool da accident dina am mais duñ ko def ñoom daal dañuy seetaan bu jëyee amaat ñu génnan nan dañuy jaale dëgg du rombi nopp mais bon Cheikh Ahmed def naa ne am na lu des de ma ne ko baaluma la ak ndax yow leen fal nga jiite justice bi gis nga liñ ma def teg nga ji sa bët gis nga biñ ma dugalee kaso ah kon yow Cheikh Ahmed yow tamit da nga am déception ci Macky sàll bu rëy. bu rëy a rëy a kon daal boo toogoon ak moom nii nga koy waxee. li ma la wax nii su ma toogoon